mbokki ñiy teewlu si Jalile TV dal leen ak jàmm dañuy door nomination yi nga xamante ne ni njiitu réew mi daal na ko def niki ki démb ca conseil des ministres ginnaaw nag gouvernement bi nga xamante ne ni daal na ko taxawal ba noppi moom Bassirou Diomaye Faye daal dina tabb kii di monsieur Bara Diouf gestionnaire administratif et financier daal di koy def délégué général à la promotion des pôles urbains bu Diamniadio ak bu Lac Rose moom nag dafay remplacer kii di euh, monsieur Diène Farba Sarr monsieur Bakary Sega Bathily nag moom spécialiste la en management des projets moom nag daal dinañ ko nommé directeur général bu agence pour la promotion des investissements ak des grands travaux di APIX SA moom nag dafay remplacer kii di monsieur Abdoulaye Baldé monsieur Pape Alé Niang nekk journaliste moom nag daal dinañ koy nommé directeur général bu radio télévision sénégalaise di RTS moom nag dafay remplacer kii di monsieur Racine Talla monsieur Waly Diouf bu Dion nag moom inspecteur principal des impôts et des domaines la moom daal dinañ ko tabb def ko directeur général bu société nationale du port autonome de Dakar daal m wuutu kii m monsieur Mountaga Sy monsieur Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye nag moom ingénieur la en génie et travaux publics daal nañ ko nommé directeur général bu aéroport international Blaise Diagne di AIBD SA dafay daal di remplacer kii di monsieur Abdoulaye Dièye monsieur Fadilou Keita nag nekk manager en gestion financière moom daal nañ ko tabb def ko directeur général bu caisse des impôts et consignations dafay daal di wuutu kii di monsieur Cheikh Issa Sylla ci nomination yi ba tey monsieur Tidiane Sidibé moom expert la en gestion des projets ak euh, développement territorial daal nañ ko nommé def ko directeur général bu agence nationale de l'aménagement du territoire ANAT dafay daal di remplacer kii di monsieur Mamadou Djigo monsieur Sekouna Diatta moom nag maître de conférence la en écologie daal nañ ko nommé def ko directeur général bu agence sénégalaise bu forestation de la grande muraille verte dafay daal di wutu kii di monsieur Oumar Abdoulaye Ba ci médecin expert la en environnement def ko nag directeur général bu office national de l'assainissement du Sénégal di ONAS dafay daal di wutu ki di monsieur Mamadou Mamour Diallo monsieur Maguette Diakhaté inspecteur la des impôts et des domaines daal dinañ ko nommé directeur de la législation et de la coopération nationale moom nag dafay daal di remplacer ki di Mouhamadou Lamine Sy monsieur Abdou Ning moom nag inspecteur la des impôts et des domaines daal dinañ ko nommé def ko directeur des domaines en remplacement maanaam di monsieur Mamadou Guèye li mel nag njiitu réew mi moom la daal di def mu yees ni ki démb xibaar gi nag euh, daal nañ ko wasaare ministre bi yor wàllu formation professionnelle nekk porte parole bu gouvernement bi di Amadou Moustapha Njek Sare moom nag moo daal di euh, siiwal bile document ni ki démb yi la nomination nag la Bassirou Diomaye fay daal di def ginnaaw gi am na ci ay euh, nit yoo xamante ni nii seen nomination daal nañ ko rafetlu bu baax a baax am ci ñu jàpp ne nomination bu kii di euh, Pape Alé Niang ñu daal di koy tabb teg ko ci boppu RTS mu daal di fay wuutu Racine Talla mu nekk nag nomination boo xam ne ñu bëri ñu ko doon xaar moom Pape Alé moo xam nag ci bopp RTS la wala sax euh, ci biir gouvernement bu Bassirou Diomaye Faye ndax xeex koo xamante ne ni Pape Alé Niang na ko def jëmale ko ci wàllu wi journaliste d'investigation bi di Pape Alé Niang nag euh, par ailleurs moom patron la maanaam moo nekk ci bopp Dakar Matin daan nañ ko ni rafetlu nañ ko bu baax ñu bëri sax la ñuy wax rafetlu nañ ko Pape Alé Niang ñu daal di koy xam ci engagement am ci wàllub journalisme d'investigation moom mi nga xamante ne ni moo taxawal journal Dakar Matin fësal na boppam bu baax a baax ci lu ñeel nag Sénégal daal di mën a jot ci démocratie wam nomination bi nag ñu bari daal di nañ ko accueillir bokk na ci ñu ko accueillir bu baax Seydina Oumar Touré moom nag rafetlu na bu baax euh, tab gi nga xamante ne ni def nañ ko ko moom euh, Pape Alé Niang ci fësal nag ay qualité professionnelle yoo xamante ne ni gis na ni Pape Alé Niang am na ko def ko ci bopp RTS day doon loo xamante ni lu mucc ayib la bu ñu sukkandikoo ci Seydina Oumar Touré mi rafetlu ay qualité morale ak professionnelle li mu xamle moo di journaliste bu intègre bi yàlla na ko yàlla sàmm ci lenge yi nga xamante ne ni daal na ko jël mu doon nag déclaration boo xamante ne ni moom Seydina Oumar Touré daal dina ko def ci nomination bu Pape Alé Niang ci bopp RTS leneen ci xibaar bokk na ci soupçon ko ci wàllub LGBT ginnaaw nag ba Jomaay fay maanaam jiite réew mi daal di invité kii di Charles Michel maanaam daf ko rek daal di recevoir loolee nag Jamra daf ko ci daal di reproché di fàttali nag président bu conseil européen bi ñëwoon na bu yàggul dara fi ci Ndakaaru ginnaaw nag doxub nemmeekom boobee mu amal fii ci Sénégal di Charles Michel jiite réew mi Bassirou Jomaay fay daf ko daal di recevoir ci audience foofee ca palais de la République li ni mel nag Jamra rafetlu ko benn nag euh, taxawaay goo xamante ne ni moom rafetlu ko bu ñu sukkandikoo ci suñuy ñooñ yu fare ci source a ñoom li ñu xamle moo di ñoom ñu joxe bi la information Mame Mactar Guèye nekk président ba daal dina fas yéene amal ab conférence de presse ngir ñu daal di koy digg ci wàll wi ONG islamique bi nag moom euh, daal dina amub benn xalaat ci président bu conseil européen boobee nga xam ne dafa tegoon tànkam ci mim réew moom président bu conseil européen boobee nekkoon na président yi ñoom ñoo ko daal di taxawaloon maanaam boobule concours ñoom ñoo ko daal di jàpp ne ni nag président boobee dafa am agenda bu làkk lool bu fas yéenee fësal lépp loo xamante ni jëm lu jëm ci acte contre li ni mel nag tey xelu ONG Jamra lool ba mu jàpp ne nag rafetluwul ni ko njiite réew mi daal di accueillir bu ñu sukkandikoo ci président bu ONG Jamra ba tey muy fàttali ni Charles Michel moom dañ ko désigné woon homme de l'année ci wàllub LGBT yi ngir service boo xamante ni rendre seen liggéey yooyee mbir yëpp nag buñ ko boolee dafay firndeel ni moom dafay jàppal mbaggal lépp lu jëm ci wàllub homosexualité tax nag ñoom rafetlu wuñu benn yoon njiita réew mi anam gum ko daal di recevoir naka noonu moom euh, njiital ONG Jamra mi ngi cay artu njiita réew mi ngir nag mu daal di moytu bu baax di recevoir nit ni ñu mel ndax lu ko mooy ñoom seen xel daf cay tey li nu mel nag ñoom daal di nañ ci taxaw temm moom surtout président ba di Mame Makhtar Gueye tax nag mu fas yéene amal akub conférence de presse ngir ñu daal di koy dégg ci wàllu wi ndax moom jàpp na ni lu mooy lii dina jur loo xamante ne ni du rafet ci mim réew artu na ca nag président ba saa si taxawaayam moo di mu daal di fësal ay kàddoom ci wàll wi ngir nag président bi daal di mën a jël ay matuwaayam moytu kii di Charles Michel moom li muy nëbbu dafa bëri lool te lépp loo xamante ni ni moo jëm ci LGBT faw rek ñu daal di koy maytundi ci mim réew ndax yàgg nañ ko fee xeex ci fàttali nag ñi nga xam ne ñooy waa LGBT ñoom ñooy nag borom ñaari réew yi tam fës na fa lool. jamono yi nag doon na loo xamante ne ni Sénégal xeex na ko bu baax ngir nag ñu bañ leen fee dooleel seen couleur ak taxawaay woo xamante ne ni daal nañ ko fi am ci nguuru Macky Sall tam doon na loo xamante ne ni waa ONG Jamra yàgg nañ cee axtu di ko xeex ngir mu bañ fee am wala ngir ñu bañ leen a may doole loolee nag jiite réew mi fi ne woon di Macky Sall jot na ci génn génn gu bari ngir daal di xam le ni moom bootuwul ci ñoom te àndul ci ñoom ndax te Sénégal doon na réew woo xamante ne ni la ci ëpp ay jullit leen te diine gi daf koo daal di bañ ñu njortoon ni moom dafa amoon ñu koy daal di influencer ba ci doxub nemmeeku bu Barack Obama jamono yooyee doon na loo xamante ne ni ONG Jamra daal na ciy génn fës ca bu baax ngir rek daal di indi aku communication boo xam ne dafay ñeel ñu daal di bañ a may doole waa LGBT borom ñaari tur yi nga xamante ne ni jamono yi ci àddina wërngal këpp jot nañ fee fësal seen bopp ci lu baree bari kon nag ni ni mel ONG Jamra daal di taxawee ci doxub nemmeeku bu Charles mi nga xamante ne ni ñëw na fi bu yàggul dara ngir daal di nemmeeku si njiita réew mi Bassirou Diomaye Faye